njëkkee dalal bi ci kilifaam di suñu kilifa ñun ñëpp di serigne mustapha di khalifu serigne Mohamadou Lamine bara damay wax ni sama digënté ak serigne Galas euh, sosuwul ren yàgg na ëpp na ay fukki at ak lu top ndax dama ko musa wo wax ko ne ko yen yenay doomi serigne bara yi sante mais Serigne Baara njaboote nañu santul Mbàkke def ci ñoom cofeel ak ay euh, ay teraanga yoo xam ni yii yéen ñoom yéen a bokk waajur kóllëre googu nag bëgg nañ ko wéyal euh, ginnaaw bi ñu ko tegatul euh, bët mu nangul ma loolu wax ko itam ñi mu bokkal Serigne Momadou Lamine Bara ñëpp ñu nangul ñu ko donc loolu lu yàgg la te kóllëre googu musuñoo may mbirum politique wala yëngu-yëngu jamono mu am ci cër ba di ko xajamal wala mu cay yokk dara donc loolu la doxal ba ba tey mu analyser situation euh, réew mi xam ni kenn ëpp ko ci responsabilité euh, mu tànn euh, en toute conscience et en toute liberté euh, de se battre pour que lii war a yàqu bañ pour que pour que Sénégal bañ a bañ donc ñuy ñuy sant bu baax ci lolu jërëjëf comme niñ ko xamé ñun ñëpp ñu gis ne que Sénégal béykat yi ñi ngi am jafe-jafe ngir jaay seen li xamné mom moom lañ am ci nawet bi ñu gis jaam béykat yi am am problème dégg président mu ne day taxawal beneen palais présidentiel à Diamniadio ban gis-gis nga waaw lolu dañu koy ñaawlu puisque da fay melni njitu rewmi xamul lan moy priorité am vraiment fenen fu mu def item ak alalu rewmi fudul di tabax ay palais parce que d'abord li muy wara a saytu lolu moy fonction bi njëkk bu état wara régler moy sécurité sam nit ñi ak seeni alal pour ñu bañ leena agresser pour ñu baña enlever xalé yi pour ñu bañ a sàcc jur gi ak yooyu loolu mooy première fonction état ñaareelu fonction état mooy mu am yoon justice boo xam ni euh, dafay euh, nekk pour ñëpp wante justice boo xam ni état bi moo koy manipuler exécutif moo koy manipuler bu neexee président mu topp kii bu ko neexee mu bàyyi kii loolu lu ñu war a saafara la ñetteelu priorité bi mooy alal ji nga xam ni moom la réew mi yëpp bokk mu doxale ko noo xam ni dana jariñ askan wi wante li ñu seetlu ci doxalinam mooy ressource nationale yi ñu am lu mel ni pétrole bi ak gaz bi daf ko jël jébbal ko frère bi mu waxoon ni du musa signe signé pour nommer ko ci dara te léegi dénkaat na ko caisse de dépôt et de consignation yooyu yëpp di ay ñaawteef ci doxalin Euh, boo xam ni dëppoowul ak intérêt réew mi linga li nga aussi moi, baykat yi ñoo ngi bay ba pare mënuñoo jaay seen gerte njëg gi ñu leen fixeel euh, mënuñu ko ci am sur le marché national ak yenen, puisque am na bi ma toogee fii go rek genn kilifa goo xam dafa dafa mutuelle de santé mais xamal na ma daanaka CMU bu bu Macky Sall bi tax na ñoom seen euh, euh, jumtukaay yooyu yëpp yi aju ci gérer santé bi dafa nërmeelu puisque état bi bor yi mu leen ci ameel fayu leen ko donc vraiment am na ñu yeneen priorité ñu gis démb wala ba démb ARMP nga xam ne mooy gérer les marchés publics épinglé ministère yu bëri ci gouvernement Macky Sall ana loolu tamit ban gis-gis waaw loolu gis-gis bi ñu ci am avant ARMP di di épingler ay ministre dafa war épingler président de la république ci boppam puisque mom gestion dou gestion bu vertueuse donc mom la ñu waroon a njëkk a puisque ñëpp ci kilifa bi la ñuy ah, ni muy def rek la ñeneen ñi di donc ci bopp bi ngay commencer ci bop bi ngay commencer def lu jaadu mais buñu gissé nga né duma ma nommer sama frère après nga changer def décret nommer ko dénk ko caisse de dépôt et de consignation nga jël ay permis de euh, pétrole jox ko mu jaayé ko ay milliards mom musta gas sax teen teenu ndox ak teenu pétrole vraiment euh, c'est incroyable les autres vont se dire mais <laughs> s'il fait ça pourquoi pas nous donc euh, je pense que boole ceeg am na yeneen rapport yu jiitu yooyu yoo xam ni moom moo déclaré ci kanamu télévision bi wax leen yéen waa Sénégal yëpp ne leen dossier yooyu maa ci teg sama conco kenn du ci wax am na OFNAC am na yeneen donc euh, vraiment moom la ñu war a njëkk a moom la ñu war a njëkk a saytu